ndaje bi waaw comme ni ko suñu yaay ji waxee di adjointe au maire di xuja waaw ndaje bi ñun dañoo jël ñi nga xamante ne tey jii ah yàlla dafa def seeni cër dañoo xaw a wàññeeku ñun gannaaw bu maire defaree unité yi di quatre unité ñu waxtaanoon ñun ñi nga xamante ne ñu ñoo seq unité yi ñu ne ñun kat pour jàppale maire ci xeex bi nga xamante ne tey jii ah moom moo lëmbee monde bi euh, di coronavirus pour jàppale ko ci xeex bi nga xamante ne mu ngi ci jàppale aussi ki nga xamante ne mooy njiitu réew bi di Macky Sall jàppale ko ci nga xamante ne tey jii moom la ñuy liggéey muy savon buñ ci waxtaanee ñu ne dañuy jël valeur dañuy débloquer valeur de mille ñun 4 unité yi jàppale ko monsieur le maire monsieur le maire jàppale ko suñu parents yi nga xamante ne ñoom dañoo am ay laawa. waaw ah di ñaax euh, ñi nga xamante ne vraiment ñooy parent yi surtout yaay yi vraiment ñu téye seen doom yi. parce que bu ñuy jëlee tey décret ne ñëpp xale yi bu ñu demati école nga xamante ne loolu moom ça devient sérieux ndax tey bàyyi sa doom mu toog 15 jours yoo xamante ne demul école bon xam nga ne lii nekkatul ay caaxaan kon maa ngi ñaax yaay yëpp ñu téye seen doom yi gën leen joxu leen ay exercice ci kër yi ñu def walla ñu seet liñ leen occupé boobu bu ñu génn ci mbedd bi ñun pour ñu mun a gunge maire ci xeex bi nga xamante ne mu ngi koy xeex lii di feebaru coronavirus ñun waa réseau des femmes bu commune de Malicounda dañoo waxtaanoon jàppalee ko ci valeuru 500000 defar ko ay saabu ba pare jox ko ci ndigalu maire mu jox ko ñi nga xamante ne ñooy suñu parent handicapés yi. Euh, bala ma wax sama yëg-yëg il faut ma remercier d'abord euh, monsieur le maire moom mi nga xam ne ci lii nekkul première fois mu di ko def. moom si def lu baax la dëkk vraiment suñu contentement moom mënuñoo wax fu mu mën nañu wax fu mu commencé mais mënuñu wax fu mu yem. xanaa respecté comme lu ministre bi di wax chaque jour ñuy raxas suñu loxo yi di bàyyi xel si tout ce qui est affaire de saleté affaire yooyu ñu siy bàyyi xel joxe tin ñu ne dinañ def le tout ba góorgóorlu ba respecté ko si nun ñu ko joxe pour di ko utiliser nun ñu ko war a utiliser quoi mooy raxas suñu loxo yi téye suñu xale yi di leen raxas seen loxo en même temps wala nga lekk wala nga def benn affaire il faut nga koy di ko utiliser na nga war a utiliser quoi réseau des femmes moom chaque fois dama leen di ñaanal xanaa continuer di leen ñaanal yàlla jàppale leen li ñuy def nii yàlla si yàlla yàlla leen si yàlla defal ndam yu baree baree bari parce que déjà lii man rek nekk na acte boo xam ne si acte bu rafet la su ma juumulee partout dans le Sénégal c' la première fois man ma gis ko man personnellement au moins c' la première fois ma gis ko dans le Sénégal réseau des femmes bu toll nii defar quantité bu pel nii valeur cinq cent mille francs nga jël ko may ko jox ko ñi nga xam ne si ay way laagoo la nu koy waxee ay handicapé lañu nekk na loo xam ne si kenn mënu leen a fay daal bu dul yàlla rek moo leen mën a fay di leen ñaanal lépp lu ñu bëgg si seen réseau des femmes bi leen ko ubbiwaat ay usine usine usine yoo xam ne si vraiment amul yemu ay quoi saabu yi moom am na solo trop parce que tim xam nga nit moom mënul def dara si àdduna presque sa saabu bokk ci particulièrement yi nga xam ne si nag euh, matière locale la moom moo ëpp sax soo xoolee produit yoo xam ne si am importance matière première yi ñooy gën nekk loo xam ne si lu am importance la quoi kon dafay nekk loo xam ne dinañu amal njariñ bu baax a baax a baax